tey jii Magal TV moo ñëw fii ci daralu Touba Ndindi ngir fas yéenee jël li nga xam ne moo aju ci wàllu gétt gi ci taalibe sëñ Tuubaa yi nga xam ne fas nañoo yéene jëfandikoo bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci safar te sëriñ bi waxoon ne diggante ñaari keef yi li ko dalee ci ginaar ba ci gëléem bu ci xeeb ginaar bu ci naw gëléem kon ñu ànd ak yéen tàbbi ci biir daral gi xam ni nga xamante ni noonu la daral gi di jëfandikoo ci wàllu bis bi nga xam ne moo nekk suñu kanam di màggalu Tuubaa yàlla moo ko defal moo am lu dul jeex te laa biir wuy si raw gaa ngi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 te bu ñu leen ko waxee woon ñu ngi fii ci mbaar mi nga xam ne ki nga xam ne mooy kilifa daral gi euh, mbaar mi ngeen gis nii mooy mbaar mi nga xam ne kilifa daral gi fi la ne ñu fekk mu génn nag waaye ku ñu wax alaaj Njaay yor kàddoom fas yéene jotal li nga xam ne moo aju ci wàllu daral gi sëñ Alaaji ñu bëgg a xam ndax ren nag yi nga xam ne moom la taalibe sëñ Tuubaa yi ñëw di fàggu ngir di ko jox dongay sëñ Tuubaa yi ak gan ñi. yéen ban taxawaay ngeen ci am ndax yéen a ngi yombal ñi nga xam ne ñu ngi fi ñëw wala nag yi nam daan tëddee ba léegi lay tëddee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki taalibe yi ah, murid yëpp ñoo ngi leen di nuyu jullit yëpp ñoo ngi leen di nuyu tey sant Serigne Touba bu de xam ne a ah, lii nga xam ne nun day gis nañ ko fii ci nag sax nun bett nañu. ndax bi muy jub de yëf yi eh, xawoon naa seer bañ amoon ci ak jaaxle waaye fi mu toll nii xéewale na ndax nag yi yomb nan loo indi bu soobee yàlla da nga am lu tollook sa poos ndax nag yi dañ ñu ngi commencé ba ci ñaar fukki junni ak ñeent maanaam cent vingt mille cent trente mille deux cent mille trois cent mille quatre cent mille am na ki sax nag yu jarba ba six cent mille am na ci nag yu jar sept cent mille waaye loo indi ndax wax dëgg yàlla nag ndax nawetu ren bi ñu génn xéwal gi yokku na ndax it niñ séentoo woon ne ni la nag ñi euh, ñàkk a suuree meluñu ni nag yi suur nañ rafet nañ wax dëgg tamit murid yi jënd nañ bu baax ndax nag nag lu fi nekkoon ci nag ku ko kalkinoon daanaka ëppoon na juróomi junni nag te daanaka boo xoolee dara gi li ci ëpp dem na. ndax nag yi ngay séen ci sama ginnaaw yii ngay séen ci sama ginnaaw li ci ëpp lépp jar na te boo xooloon daral gi fi mu ne li nga fi séen lépp ah, bu ah, li baaxoon sax mooy seen reportage bii ngeen xam ne moom la télévision bi def di ko caméra nii nga gis nag yi bari boo demee ba nga xam ne màggal nañ ba ci suba sa da ngay ñëw boo xoolee mm, daral gi day ñuul kukk lépp jeex te mu yi doo nga koy jënd yóbbu ko ci bisub Serigne tubaab bi nga xam ne ah, lii ki sëñ Touba doon sàkku ji sàkku ji di dem ca géej ga di dem ba ba mu ñëwee sëriki bi mu doon indaaleel nga xam ne moo waral cant gii muy ñu koy santal ñun de noo koy sant bu wér xam nañ ne day euh, wax dëgg sëñ Touba defal nañ loo xam ne benn murit bu ko mën a fay amul waa àddina sax kenn mënu koo fay. Ah, ndax li nga gis fi nga xam ne ëpp na juróomi junni nag ñu dem ba lépp jeex. te it du genn daral gi moo nekk ci Touba ndax daral kër kàbb am na fi am na ay nag daral yi nekk euh, kër ajuma ngom daral gi nekk euh, fu ne ak daral la nga fa daral yi bari nañ te yëpp a jeexal te lépp ki ci euh, bisub sëñ tubaab bi rek la ko nit ñi jëmee nun day noo ñaanal murit yi yëpp képp képp koo ci xamoon ne meloon mënoon nga fukk bu déwee ne yàlla na nga mën téeméer mbaa junni ci dara gi sëñ Touba yàlla nañ ko teewe ay at yu baree baree bari te sëñ Sidi Muxtaar mii nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Touba mat ko sëkk fees ko dell yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg te wér ak ñëpp ak ak ay rakkam ak waa kër sëñ Touba yëpp yàlla na fi ñëpp yàgg yàlla nañ ko yàgg màggal ci dara gi sëriñ Touba. ba tey li ma sa gu mujj mooy kon jàpp nañ ne daal képp ku am ñaar fukki junni. la mooy tàmbali bi nga xam ne ku ko am boo ñëwee da am nag. ku am ñaar fukki junni boo ko tàmbalee boo ñëwee boo xeebut da nga am ñaar fukk ak ñeent dana am fanweer am na nagu ñeent fukk am na noonu ma la ko waxee rek lu waay bëgg am na. lii may wax nag maa ngi koy wax ci kàddu Sëñ Taaw Njaay mi nga xam ne moo jiite daral gi bornu te mat ku sëkk tamit maanaam taxawaayam rafet lool.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 niñ leen ko defele woon ci nag yi ñu ñëw fii taxaw ku wax Idi Jaxate ci li nga xam ne moo aju ci wàllu giléem yi ñu koy indee fu sori di ko indi fii di ko yombalal taalibe Sëñ Tuubaa yi ak jullit ñi ngir kenn ku ci ne mën a am loo jëfandikoo ci bis bi ci ni ko suñu borom diglee te mooy li nga xam ne taalibe bu ci ne moom la bëgg mooy diggante ñaari keef yi loola ci sa wërsëg may nga mën koo jëf ci bis bi kon sëñ Idi ah, ah, ñi ngi lay laaj giléem yi nga xam ne yéen a ngi ko yor fii fan ngeen koy jëlee ak bu ngeen ko indee ba noppi ndax transport bi jéggi na dayoo wala déet bu ngeen ko indee ba noppi taalibe yi nga xam ne ñoo koy sàkku si fi ban njëg ngeen leen di jafal ak yéen njëg ñoo fi am. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ci màggal bi yàlla na barkeel. waaw gëlëm yi moom gëlëm yi il faut mu cher puisque nguur gi la ñoo ci teg ay taxes yu bëri que gëlëm boo gis ñu ngi ko dédouané ay 17000 yu tegal. gëlëm bu ne waaw gëlëm bu ne ñu ngi ko dédouané ay 17000 yu tegal. plus transport bi boo jëndee Mauritanie fu ñu wax kii fa fu ñu wax kiifa dix huit mille sax du sept mille dix huit mille la léegi boo jëndee gëléem bi kiifa da ngay jël camion ak ay yoo fere ak fere yoon bi ak yëpp boo daggee tamit ay frontière bi da fay ay dix huit mille loolu moo tax gëléem yi cher parce que bu ne bu dul woon dix huit mille da teg ci njëgam quinze mille ak fere yeneen fere ak yeneen i fere. njëg yi fan la tàmbalee. njëg yi mu tàmbalee ba deux cent xam naa yooyu moom amatul parce que gëléem léegi nag xam naa njëgi ñoo ngi ay trois cent trois cent dix trois cent vingt cinq ba trois cent cinquante sans départ. kon li fi nekkoon ci ay gëléem. am na léegi mais bareetul tamit léegi mu jeex xam na li fi nekkoon ci ay gëléem defe naa ne bari woon na lool. waaw li fi nekkoon ci gëléem bari woon na lool bari woon na lool mais wàññeeku na. wàññeeku na baax wàññeeku na baax puisque yu jeex yëpp presque yu ndaw yëpp jeex looy wax ñi nga xam ne ñëwagun te fas yéenee fàggu gëléem. waaw nañu fexe teel a ñëw parce que daal lu ma gis lii xam naa ne gëléem day jeex gëléem yi dañuy jeex nañu gaaw a ñëw kon de xanaa di ngeen ñaanal Cheikh Sidi Moutar mu yàgg fi loolu tamit. yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin leen ko waxee woon ba léegi Magal TV moo ànd ak ci dara lu ndindi gi ba léegi fii ñuy waxee ak ñu daje ku ñu wax sëñ Abdou Kandji mel na ne fekk nañ ko fi mu fàggu ñaari gëléem mu mel na kon sëñ Abdou Kandji mel na ne yaa ngi waajal Magal. waaw baax a baax a baax. ba gëléem yi seerut. gëléem yi seerut ndax uh, ki ko defal jar na ko. alhamdulilah kon mel na ne bi nga ñëwee na. fekk naa loo xam ne toll naa sama njëg sa kon looy wax ñi nga xam ne ñu ngi wàcc te ñëwagul. ah ñu ñëw rek ndax xam naa ne sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la waaw kon looy wax ci bis bi nga xam ne mooy sunu bis bi nga xam ne. moom la ñëpp doon xaar muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar. te sëriñ bi waxoon bis bi saa bu dikkatee ci kaw suuf na ngeen ma santal yàlla ci bis bi. li ko dalee ci ginaar ba ci gëléem. yow nga fàggu gëléem tey mbégte moomu tey loo looy wax tey askan wi. dañ koo jaayante woon sëñ bi. ne ko gëléem lañ bëgg rek war naa man ñeenti at at mu jot dañuy xool ne suñ sëñ Tuubaa ñi defal ñu yokk boo yokku na da yokk moo tax ren daaw ñu daan jënd benn ren yokku nañ ci ñaar waaw te lépp sëñ Tuubaa ko waral ñun ñu ngi doon taalibe Serigne Cheikh mu sëñ borom dëri mu sëñ Tuubaa dëkk Daaru Rahmaan fa lañ jëm bu soobee yàlla fa lañ jëm waaw waaw mbokki taalibe yi kon yéen a dégg sëñ Abdou yi jaayante la def ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jox ko mu fàggu ñaari gëléem kon ku jaayante ak sëñ Tuubaa ku ne la sëñ Abdou Lahad waxoon ku ma defal loo mënul ma defal la jomb kon teg leen seen baaraam foofu Magal TV ànd ak yéen fas yéene andil leen lépp lu aju ci Magal comme leen ko waxee woon ci njëlbeen ba léegi ñu ngi fii ci gëléem yi taxaw ak ku ñuy wax Demba Fall di kilifa Demba Kumba Fall di jëwrin ju mag ci géttu gëléem yi nga xam ne daanaka ci ñi fi njëkk indi gëléem ci la bokk di taalibe suñ Modou Mahfous kon mel na ne suñ ko gisee danañu leeral lu taarixu gëléem yi ak fii ci Touba ak nan lañ koy yéwénale dongo yi <laughs> bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin léegi gëléem yi biñ leen dalee ñëw fi ak léegi yàggan maa fi jëkk indi ñaari gëléem lii tax ma indi jëkk fi indi ñaari gëléem mu ngi ajoo ci soxna May Mbacke ndax moom laa leeroon gëléemam at bu ne Laylatul Qadr bi ba mos a jot may war gëléem bi mokk mokk indi ko Daaru Waxaab ñu jàllale ko fii. ba léegi ma yore gëléem yi ni mu leen yore woon gëléem yi ñu ngi sokkee ko presque booy ma wax la ci soxna May Mbacke ndax moom ñoo jëkk jàpp fi gëléem dëkk rëy ndi dëkk def Laylatul Qadr kaylin minal fisaar kon nag mbir mi yëpp dëgg la sëriñ bi mag bi Xaadimal Mustafa moom bés bi waaye nag doomam bi moom tam yàlla feeñol na ko ci gëléem yi fu mu aski tey yàlla ak moom ndax moo jëkk ren di gëléem fi def ko lay tirkadir kadir misna fi sar ba léegi nag gëléem yi gën kontin ci barke baayam ak barkam moom mi waaw man nag taalib Modou Makfou lii laa amoon ci gëléem yi ma dale fi indi ñaari gëléem ba mag indeem jaay ko waa waa waa waa waa waa jannatu ñoo ko jënd ci man fii mu ngi nekk ñaari gileem yu ndaw boobu ba léegi nag mu commencé indi be naar yi gis ko ñu roy ko ba affaire bi àgg tey fi mu àgg waatal naa ci yàlla maa jikk fi wàcce gileem fii ci Touba Mbacké. léegi kon boobaak léegi sa ñaari gileem yooyu lum jur. ñaari gileem yooyu jur na lu bari ndax jur na ci man lu bëri. jural na Touba lu bëri ndax boobu ba léegi naar yi gis ko di di ko roy indi par ñett par ñeent be gëléem yi ñëw léegi ba ñu ngi tous a ah, daaw juróom juróom-ñaari juróom-ñaari junni moo ñëwoon fii daaw ren nag dem na ba nga xam ne juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti junni juróom-ñetti junni moo ñëw fii ci li des bi boo calculé àggul juróom-ñaari téeméer waaw ci ba ak euh, sëriñ bi ak bis bu tedd bi leneen li mu yokkal la ci gëléem yi fu ñu mun àgg tey ci Sénégal kaadimal Moustapha moo ko waral mhm. ndax gëléem yi ñëw fi gétt yi ñëw fi yëpp Mauritanie leen départ direct ñëw fi comme ni kar yi ñëwee fi mhm. kon nag nun dañu war sant yàlla ak yonent bi ñu sant sunu jàmbaar ju baax ji nga xam ne moo ñu géede bi àll euh, réew bi fi mu àgg tey mhm. man lii laa amoon lu ma te heure boo xam ne kii soxna may mos na ni ci man gëléem yi na ñëw jël si foo gëléem lay tirkadir bi damay jàpp lu gën a baax sum juróom rendi ko man ak taalib yi ñu fanaan koo kéewlu mais but set ñu jiital gëléem bi ndik daar woo xam ne continué ko fii ci ba Mbacké waaw ba at bi may dem Arab Saoudite soxna Baali ba mu ñëw foo di ko taggu maa ngi dem indaale gëléem lay bi mu ne ma ma nekk man nag dama faj suma carte d'identité suma kër mu ne demal yow sa carte d'identité foo mun toll tey foo fu mu àgg ci yow tey ci ñaan soxna si foo àgg duñ la laaj sa d'identité bam ki rek dañ ma wisit verse ci bis bi kenn waxum d'identité bi anu xam naa kon mbokk yi liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu lay jëriñ da ngeen kàddu yi fi rote léegi nag li fi des mooy giléem yi njëg yi nga xam ne ngeen ko yombal taalibe yi fan la tàmbalee ak fan la yem. mu ngi tàmbale ci giléem juróom fukki junni ak ñeent juróom fukki junni ak ñaar juróom benn fukk junni ak ñeent juróom benn fukk junni ak ñaar ba ci juróom ñaar fukk ak ñaar ba ci juróom ñett fukk ba ci juróom ñeneent fukk ba ci téeméer ak juróom junni ba téeméer ak ñeenti junni gëléem yu sóor yu mucc ayib ndax gëléem bi nga janoo di bi nga jano téeméer junni lañ ko jënd yu manqué juróom junni waa lool lañ ko jënd ki jënd mu ngi seet lu mu am ba juróom ñaar fukk bu manqué waaw loolu de la liggéey bi foofu la toll fi ñu toll nii jërëjëf kon mel na ne li nga xam ne wax nga ko lu am solo la ñi lay déglu kon xam na ne liggéey bi barke dugg na ci ndax kooku di soxna May Mbàkke mhm. ñu ñaan suñu borom fayal ñu ko loolu nga leeral ci ñaari gëléem yooyu mhm. tey jii gis nga moo jur gëléem yi yëpp tey kon nag loolu ak cant la mhm. taalibe yi nga xam ne fas nañ yéene ñëw ci bis bi gaaw leen dikk dikk fii ci gëléem ñu defal leen njëg gu jàppandi ngeen màggal màggal gu mag gi nga xam ne kon moom la ñëpp doon xaar kon ñu leen jox dig daje ba ci kanam màggal TV moo ñëwoon tey di leen defal seen reportage bi nga xamante ni moom lañ leen indi ci wàllu gëléem. ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaayid yi yow loo man durus da nga léegi Magal TV moo ànd ak yéen ci daralu Ndindi ñu taxaw ku ñuy wax seex Fall mu mel ne moom it day indi ay xar dëkk Murtani ay xari tàpp moom ngeen gis nii mu mel ne seen Cheikh Fall kon xar yi njëg yi fan la tàmbale mi ngi tàmbali fukkaa ñaar ba fukkaa ñeent fukkaa juróom mooy njëg yi tàppi waaw tàppi te xar yu suur lay doon te tàppi moo gën a suur yeneen kuy. Ah. waaw tàpp tàpp yu suul la waaw. waaw xar yi bi ngeen ko indi fi ba amu leen benn coono. amuñu benn alhamdulilah coono amuñu benn problème. waaw ah. oh, jàpp rek la ñu fi gis. alhamdulilah kon loolu ñu ngi ñaanal kon sunu xalifa bi yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko. amiin allahumma salli wa sallam allah incha allah allah yatina yatihi alaafiya incha allah. yuthabbit imaanana wa imaana wa imaana al-muslimiin. mbokk yi kon lii leen leen jëlaloon ci seen daralu ndindi gi nga xam ne édition 2014 màggalu Touba tey jii di fukki fan ak juróom benn ci safar atum junni ak ñeent téeméer ak fanweer juróom-benn ci gàddaa gi ñu ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar mu yàgg fi lool te wér ñu leen di xamal na nag tey jii màggal TV moo ñëwoon ngir fas yéene la jotal lépp loo xam ne xibaar la di tukkee ci màggal gi mu mel ne su ngeen jaaree ci site bi tamit di ngeen fa fekk www ngeen am en di ngeen ko xam lépp loo xam ne mi ngi tukkee ci wàllu màggal gi. ci loolu nag ki leen doon dégtal li nga xam ne moo bàyyeekoo fii ci daral gi seen taalibe di son bu waaye Abdou Baaxee Dia moo nekk ci caméra bi du dañ ci di ko sant bu baax di ñaanal personnel bi nga xam commission NTIC responsable di Ahmadou Guèye ñuy ñaan seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci màggalu Touba suñu borom barkeel ko ba àggale ko foo xam dana kawe suñu njortu di ñaanal Cheikh Sidi Moutar mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di ñaanal ñëpp ngërëmal yàlla ak yonent bi Sëriñ Touba ñu am ko ci bis bi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ci man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ko am yoolub addis yi ta witt lam waa ngi